الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk julit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom doon nga yeyoo ñu koy sant ñi ngi seede ne yàlla rek a yeyoo ñu koy jaamu di seede ne muhammad aw ndabaw la woon bu yónni woon ci ñun di seede ne isa bnu maryam kàddoom la bu mu sànni woon ca maryama ak ruuxam gum ca boole woon yal na yàlla julli ci yonentam yooyu ak mboole mi yonent ba ila yawmiddin ay mbokk julit ngalawaay gëmal ni sunu borom yàlla day moo fi nekkoon dara àndul ak moom mu toog ba mu soog ko mu bindi asamaan yi bind suuf bind leneen lu dul asamaan ak suuf loolee ngiri ñu jaamu ko bañ koo bokkaale ak dara waaye seytaane yi ñëw nañu réeral doomu aadama yi ak jinne yi ngir teqale leen ak jaamu yàlla googu bañ koo bokkaale dara sunu borom yàlla ci loolu la commencé yónni ay yonentam yonent yooyu mu jox leen ay téere lenn dong nga taxoon muy yónni ay yonentam di wàcce téere ngir ñu jàjji nit ñi xamal leen ni yàlla dañ koo war a jaamu wóoruñu koo bokkaale ak dara mu béggale leen ca àjjanaam ja ca mooy àq la ci yàlla bépp jaam bu ñoo yowmal qiyaama fekk bi ngay faatu bokkaale woo ak sa borom dara yàlla àjjana mooy nekk sa wàccuwaay yàlla yàlla boole ñu ca waaye leneen loo mën a def ci kaw suuf ci mbaax waaye ba ngay dajeeg sa borom yaa ngi ko doon bokkaale sawara mooy nar a nekk la nga xam ne mooy sa wàccuwaay mbokk téere yooyu loolu moo nekkoon njëriñam yonent yooyu looloo taxoon yàlla yónni leen waaye seytaane nax leen ci doomu aadama ba ñu soppi téere yi borom ba ñi mujjoon a soppi seen téere mooy yahuud yi ak nasaraan yi suñu borom yàlla daal di yónnee alquran def ci xéewal gum deful woon ci xéewal yu jëkk ya ca téere yu jëkk ya ndax téere yu jëkk ya da koo wàcce woon tànn ca ay jaamam xamal leen ko nga leen nag fexe leen ba wattu téere bi waaye alquranul karim suñu borom da koo wàcce daa dina moo koy wattul boppam ba ilaa yawmi diin muy kaddu borom bi mu ñëw daal di leeral lépp loo xam ni yahud yi ak nasaraan yi ña ngi ko doon lëntal ci diine yàlla ji daal di indi ak atte bu maandu ci lépp loo xam ne juyoo woon nañ ca waaye li ëpp ci nit ñi dañoo safaanoo ak loolu boo dellu woon tey ñi gën a tax ñu jublu ci xutba tey bi mooy la nga xam ne mooy nasaraan yi nga xam ne sunu ajjumay tey jii lañ jàpp ne ajjuma ju mel nii day lañ jëloon Isa ibn Maryam daan ko ca croix ba rey ko ca ba mu dee ca croix ba def ko ñetti fan ca dimanche ja ca la dekki ba moo tax ñuy waajal tey li ñu tudd lundi de Pâques def ko fête nationale ci suñu réew réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans lañu tëj mboolem suñu école ngir yëgloo leen ne tey kat bis bu màgg la loolee mbokk moo tax nekk jubluwaay suñu xutbab tey bi ñoom soppi nañ seeni téere bal téere yooyee yóbbuwoon nañ ko lu ëpp téeméeri téere gannaaw bi église orthodoxe bi ñoom ñoo dëppoo ci en trois cent vingt cinq tànn ca ñeenti téere moom la ñuy tasaare seen biir tey téere selon Marc Luc Paul ak Pierre ila axiri macca wi macca ala kulli xaal ñu tànn seeni téere waaye mbokk mboole mi téere yooyu gis nañu ne dëppoo nañ ci fen wu rëy rëy rëy rëy fen woowee mooy lan mooy ñu duural ni yàlla subhanahu wa taala kat isa ibn maryam doomam la lu waral loolu mooy suñu borom yàlla bis ci bis yi la tànnoon benn xale bu ñuy wax mariama nekkoon xale bu fegu ñu ne après mi ngi tolloon ci ay treize ans suñu borom yàlla tànn ko ngir complété mbindaafonam borom boobu daa bind suñu bay aadama amul ndey amul baay mu jël faaruk aadama bind ca hawa gannaaw ba bind ñu ñun ñëpp ñu am ndey ak baay li desoon rek mooy nit ku génn ci jigéen ndax aadama ci góor la génn muy xa- muy non hawa ci góor la génn muy aadama mu des nag nit ku génn ci jigéen ca la def ci kattanam yónni jibril alayhi salaatu wassalaam mu daal di def ca baatu mbubbu mariam mu daal di ëmb isa na mariam ba fi isa jógee nasaraan yi ne isa kat doomi yàlla la suñu borom mu ne déedéet bu dee li leen ci yéem mooy amul bàyyi xanaa xamu leen ne maamam aadama amul ndey ci amul bàyyi borom bi subhanahu wa taala loolu la wax kon man ko bind ca kàddam nga kun fa yakuun ñun diine l'islam bi ñuy dund bokk na saar bi ci gën a màgg gannaaw fatihatul kitab saar boobu yonente bi alei salaam yoonal booy julli ñaari rakk yi fajar tari ko boo demee di witre tari ko boo nekkee ci ñaari rakk yum mën a doon yooyu naafila la ca gën mooy nga boole ko ca te mooy qul huwa allahu ahad suñu borom mu ne xam leen ne yàlla kenn la yàlla moomu mooy samad kan mooy samad mooy lam yalid walam yulad lu ëpp ci mufassiruna yi dañ ne ak samad alladi lam yalid walam yulad mooy jurul kenn kenn juru ko donte ne samad arab yi daa dañ ko wax sangu sang yi ki nga xam ne moom la ñëpp yaakaar te moom yaakaarul kenn baram boobu nag ni amul kenn koo xam ne naw lente la ak moom waaye mbokk julit isa na mariam boobee da ngay gis ne nasaraan yi wëlbatiku nañu daal di koy dooral ne moom doomi yàlla la subhanahu wa taala mbokk wax joojee ba nga xamee ni jib na suñu borom yàlla nee na asamaan yi xaw nañu xotteeku suuf xaw na xar montagne yi xaw nañ daanu bi bi ñu jëkkee dégg doomu aadama naan yàlla am na doom allah ma lu gën malaaka yaa ngay sabbal yàlla malaaka yaa ngay ñaan yàlla jéggal waa suuf loolu moo tee yàlla alak ñu mboolu seen ci wax ju bon jooju ñuy wax mbokk yemuñu ci ne isa doomi yàlla la waaye yahud yi bon yooyee ñoom nasaraan yi juyoo nañ ci juyoo boo xam ne xooma ku ci gën a bon la mu wax benn mooy yahud yi mbokk julit dañoo jàpp ne ñoom kat isa doomi njaaloo la ndax daa ñëw weddi seen doxalin indi injil di téeréb yàlla bu bees ñu dem tasaare ci adduna bi tasaare ci buuru ruum yi ne leen am na benn doomu njaaloo bu nekk fii contre suñu diine ji contre nguur gi ba buuru ruum jox leen digal ne leen kon nañ ko jàpp nañ ko rey ñu dem bëgg koo rey suñu borom yàlla subhanahu wa taala lëntal leen ñu rey keneen ku dul isa moo tax suñu borom yàlla moom lay wax naan ñoom day yahudi ña ngay bàkku nee nañu rey nañu isa doomi mariama ja waaye suñu borom mën a rey ñu ko daal ñu ci croix bal dañ leen a lëntal te ñi nga xam ne ñoo ciy juyoo ay njortu la ñu am waaye amuñu ci yaqin kon ana isa suñu borom yàlla ne isa day maa ko yëkkati mi ngi ci kaw asamaan yi di nelaw borom bi waxoon na ko isa inni mutawafiika wa rafiuka ilayya dinaa la nelawal yëkkati la jëmee ci man waaye mbokk yahud ba ñooyee la ñu def dana fàttali bépp doomu julit nga xam ne diine yàlla ji képp koo xam ne yaa ngi koy dund bëgg koo sellal waajal na say noon dana bëri aka bëri ci histoire ay yonent yoo xam ne rey nañu leen lu tax ñu rey leen ndax dañoo agressé ndax dañoo njaaloo suñu borom mu ne يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ni ñu jëkk ñu rey nañu leen ci lu dul dëkk ñu doon woote ci ñub rey nañ leen ci lu dul dëkk looloo tax ba mbokk jurit suñu borom yàlla sa diine ji ah am nañu la ci jiitu woon li nga bëgg rek lañ bëgg mucc ci sawara ci dem aljanna am na ci ñoo xam ne yegg nañ ci rey leen ñu ay yonent am na ñu ci yegg ci kaso ya la ñu deeyee am na ñu ci yegg ñu génn leen seen réew kon yow boo yemee rek ci ñu lay saboote ci sa muuraay beeg sa sikkim beeg sa nangam mbokk xamal ni gisoo dara loolee kon ñu bàyyi ci xel waaye gannaaw bi yahud yi waxee wax ju bon jooje la nga xamee ne nii nag mooy nasaraan yi ñoom lu ñu wax ñoom ñu ne ah isa day doomi yàlla ja moom moo ñëwee jox joxe ba pam ngiree ñu rey ko ngiree mu jënd bakkaar yi mboolem yi doomu aadama yi ñu tudde ko sufóor bi nga xam ne boo ko gëmee rek mboolem yi bakkaar yi doomu aadama yi moo ko jënd loolu tax ñu koy ñuy màggal croix boo gisee tey ñun jullit ñi li gën a rëy ci ñun ci kaw suuf mooy kaaba gay waaye nasaraan yi li gën a rëy mooy croix croix boobu nga xam ne jàpp nañ ci la ñu daajoona isa ibnu maryam am maa yow jullit xamal ne sa noon bi gën a rëy mooy croix yonent bi lim gënoon a bañ a gis ci kaw suuf mooy croix ndax croix boobu dafa safa nook la yàlla wax ci téeréem bu tedd bi suñu borom mu ne wa man qataluhu wa ma salabuhu lan mooy li am isa bi ñu ko bëggee jàpp yàlla yëkkati na ko ci kaw asamaan yi ka nga xam ne moo ko bëggoon dénoncé kooku la yàlla jël melokaanam boo teg ko ci moom gaa yi jàpp kooku la ñu rey mais isa mi ngi nelaw ci kaw asamaan yi suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala nañu wa innahu la ilmun lissaa am ñi ñu ko jànge la alamun lissaa balaa bisu penc ñëw isa bne mariam dana wàccaat ci kaw suuf yeneen bi salallahu alayhi wa sallam ne xam leen ne balaa adduna tukki yàlla dana wàcce waat isa bne mariam mu nekk ab attekat bu maandu nekk njiit buy jiite ci dëgg dana dammate mboolem croix yi nekk ci kaw suuf santaane ñu rey mboolem bam xuux yi su boobaa kenn dootul toléré ahlul kitaab ci kaw suuf imma nga nekk julit wala imma ñu rey la loole yonent bi alei salaam nee na mi ngi wàcce ci damas fële ci Syrie ca boobee jamono bi muy wàcc dana tombe ñaari kawteef kawteef bu jëkk ba mooy dana fekk yàlla subhanahu wa taala yónni ki nga xam ne mooy almahdi mbokk mahdi benn buur la buy ñëw fi axiri zaman fekk na kaw suuf yépp mi ngi fees ak lëndëm fees ak réer yàlla subhanahu wa taala kattanal ko bu ko defee mu daal di jóg daal di woote jihaad daal di noot kaw suuf daal di fii tasaare njub yonent bi alei salatu wasalaam ni kaw suuf yépp njubug yàlla di tasaare ko jamono jooju la yàlla di indi beneen fitna fitna ba mooy ban fitna mooy fitna yi masihi dajjal masihi dajjal benn mindaa fan la bu yàlla subhanahu wa taala di génne fi axiri zaman nit lay doon ab patt lay doon bëgg nday joor ba lay mooy doon loo xam ne lu yàqu su ko defee moom it mu woote ne man may yàlla tasaare mbon ci kaw suuf mu nekk fitna bi gën a rëy bu yàlla indi dépp mu bind asamaan ak suuf ba tey loolu tax yonent bi alayhi salatu wasalaam jàngal ñu kenn ci yéen buy taaya na wax yàlla yàlla na ñu musal ci ayu masihi dajjal isa na mariama boobee jamono jooju nag la ko yàlla di wàcce fekk dajjal mi ngi ci kaw suuf almahdi mi ngi ci kaw suuf isa na mariam su ñëwee su demee ba jàkkaarloog masihi dajjal masihi dajjal day seey comme na nga xam ne noonu la bi tax di seeyee comme isa moo koy rey loolee mbokk bokk na loo xam ni julit da koo war a gëm allahuma nag bala may jàll tey jii da ngay gis fitna bi ñu yàlla nattoo mbokk isa na mariam boobu nga xam ni yonent bi jox nañu ay tegtalam wax ñu fa muy génne wax ñu jamono bi muy tàmbeel am na ñoo xam ne ne nañ isa na mariam judd na ci ndakaaru njaay gii bàyyi fi ay doomam bàyyi fi ay sëtam doog a faatu waaw ñu ne leen mais day kon day ana ana mahdi mais yonente bi alayhi salaam ne bu ñëwee kaw suuf penkook saw lépp dana fa tasaare njub ñu ne waaw mahdi it day judd na ci ndakaaru gi sol nañ ko sol nañ ko ci ndakaaru gi ñu ne leen waaw ana masihi dajjal bi nga xam ne yonente bi nee na day daje isa ak mahdi ñu ne waaw masihi dajjal muy Hitler jamono bi mahdi nekkee ca la Hitler deeye loolee mbokk ay suñuy lépp la yoo xam ne nii ñi ngi koy jël di ko tasaare ci rajo yeeg télévision yi ba bu demee ba ñu néew néew gëmoon ko li ëpp ci doomu aadama yi tey même buñ ko weddiwul amuñu ca benn loo xam ne luñ koy mën a ah nekk nañ koy sikk sàkk waaye nga la way bu leen ci sikk sàkk bu leen sikki sàkk mukk ci ne isa ibn mariam judd na ndakaaru bàyyi fi njaboot faatu wallahi amul isa mi ngi ci kaw asmaan axiru zaman lay ñëw bu ñëwee tuuti mooy des ci àdduna am na ñu ne ñeen fukki at ndax at ya day mel suñu at yi ala kulli xaal la ëpp mooy ñeen fukki at àdduna tukki am na ñooñu ñu ñu dolli ci biñ demee ba na isa ñëw na bokk na it lu ñuy wax mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom it dekki wa moom it yàlla judduwaatal na ko mu daal di ñëwaat bàyyi fi njaboot bàyyi fi ay doom te mbokk ñaaru ñooñu de isa ibnu mariam ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam isa ba muy judd ci kaw suuf moom juddoowul ci sëy moo tax sëyul ci kaw suuf amuy fi doom amuy fi sët yeneen ci yàlla waxu ko xatta nasaraan yi di ñuy réer réer amul benn téeréb nasaraan bu wax ne isa am na doomi dana am doomi ci sët gannaaw ko yeneen ci yàlla muhammad suñu borom nee na nekkul bàyyi kenn ci ñun lii mbokk nga la way na ngeen ko gëm mbir mi bu leen jàpp ne ay nit ñuy tooñ déedéet dañuy défendre suñu yeneen ci yàlla muhammad moo ñu gënal suñuy ndey gënal ñu suñuy bàyyi gënal ñu suñu bakkan képp koo xam ne mi ngi bëgg a indi pas-pas bu bokkul ak bakka yàlla yónni woon loolu dañ ko défendre isa ibn mariam moo ñu gënal suñuy ndey ak suñuy bàyyi képp ku ko bëgg a duural lu ko yàlla tegul dañ ko défendre la nga xam ne ni nii moom la yonent bi alayhi salaam wax ne al mahdi mi ngi ñëw fi axiri zaman mi ngi bokk ci njabootu fatima wane ay melokaanam képp ku ñu bëgg a waxal ne moom mooy moor càmmi wala bande deer bi dañ naan la déedéet ñun du ñu jënde waxi yonente yàlla bi ci waxi keneen ku dul moom lii mbokk dañ cee war a bàyyi xel bu baax gannaaw loolu mbokk julit nañ xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala day nee na yowm alqiyama dana woo isa ibnu mariam woo mboole mi chrétiens yi ñu taxaw mu ne leen waaw isa ndax ñii yaa leen waxoon jël leen ma maag sama yaay ngeen def ma ay yàlla isa ne ko ah yàlla sell ñeen na la yellul ci man may wax loo xam ne yeyoo wuma ko su ma ko waxoon xam nga ko waxuma lu dul lan ma wax loo mooy nekkoon naa di leen seede ba ma fa nekkee ba ma fa jógee nag yàlla yow yaa leen doon seede sama yoon nekkul ci ñoom yàlla say jaam lañu boo leen jéggalee yàlla yaa xam boo leen mbugalee yow yaay ka nga xam ne yaay ko nag lépp mbokk lii it lan la ñuy jàngal ngan la waay moytu leen lu ñu leen wax sëñ diw nee na ngeen gëm ko yonent yàlla muhammad moo ana lan lañ ko dooral soo demoon ci bind ko te hadis yi ay volume yi volume lañ lay génneel ci ay hadis mawdu yoo xam ne dañ ne yonent yàlla nee na ci yonent yàlla waxul isa ibn mariam mi ngi ñuy taxaw ci kanamu borom bi ne li chrétiens yi doon wax maa ko wax waxuma ko kon it ngal la way bul nekk rek bu ñëwee suñ sekk nee na suñ sàmb nee na suñ demb nee na ila axiri bari na tey sunu maam yi fi jaaroon di woote ci diine ji di teeti nit ñi bañ fi jógee amul weer woy dugg lu dul nga dégg ñu tuumaal leen wax joo mus a dégg ak moo amee ndaje ñu tuumaal leen wax joo xam ne mosoo ko dégg lii ndokk na mbir yoo xam ne nii dañ ci war a bàyyi xel bu baax gannaaw loolu moo ko jurit ñi ngi nii dugal ñii ci li ñuy tuddee seeto pàkk imposé ko sunu administration imposé ko sunu école yi sunu ndaw ñu xamuñu waaye nga la waaye jàngal leen seenu njaboot donte ne nii ah fait accompli le fokk ñu fet loo leen ko waaye jàngal leen leen ne leen mbokk suñu diggante chrétien yi lan moo ñu war ci ñoom mooy lañu yàlla wax قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا kaay leen yéen chrétiens yi ñu ñëw bokk benn diine boo xam ne base ba mooy ñun ñëpp nañ jaamu yàlla buñ ko bokkaaleen dara bu ñu jël muhammad def ko yàlla bu ñu jël isa def ko yàlla nañ jaamu yàlla ñooñu ay royukaay lañu lii mbokk ñu woo leen ci loolu su dee ne lànk nañu xamal leen na nag ne yonent bi alayhi salatu wasalaam day daana wax ne bépp yahud bu ñu leeral ne man yàlla yónni na ma wala bépp nasaraan mu mu yëg ko ba pare topp ma ku mel noonu sawara muy wàcc waayam su ñee fetteerlu nañu nga jàngal leen qul yaa ayuhal kafirun comme nag léegi weddi ngeen suñu diine ji léegi jàpp leen ca na ngeen di jaamoo yàlla ñu nit ñoo ngi jàpp ci ni ñuy jaamoo yàlla loolee di mbir moo xam ni dañ ko war a jàngal suñu njaboot mbokk julit xamal ne feete pakk ci jaamu yàlla yi chrétien yi la feete noël jaamu yàlla yi chrétien yi la 31 décembre calendrier chrétien yi la na nga xamee ni amoo droit fekk leen ñuy sujuutal seeni croix nga leen di félicité wala di ci ànd ak ñoom noonu it amoo droit ànd ak ñoom ci seeni feet loolu dafa doon lu xaraam bal mën na yóbbu nit ki sax ci ak kéefér même bu dee ne féetewoo ko bul bokk mukk ci ñi leen di félicité ci seeni feet abadan julit bi félicité ab chrétien wala yahud ci lépp loo xam ne dafa aju ci jaamu yàllaam rawatina loo xam ne nii suñu borom yàlla dafay wane ne mere na leen suñu borom yàlla dafay wane ne dañoo sànq loolu it mbokk julit ñu bàyyi ci xel bu baax rasul salallahu alayhi wa sallam daana wax ne kuy nuru nuru la aw xeet ca ñoom nga bokk mbokk isa ibn mariam mi ngi nii ñi ngi nar a màggal daat diñ ko daajoon ci croix di nar a màggal dékk gi mu dékkoon ba ñu ne dajawaat naag la nga xam ne mooy ay labbeem loolu lépp ay léeb la waaye ñun lan lañ ciy jànge en tant que julit xamal ne kaw suuf ñetti mbooloo fi nekk yoo xam ne du dañ ba ila yumi diin mooy mbooloo mi xam dëgg ba pare fekkeerlu lànk ko ñooy almaxdubi alayhim te ñooñu mooy ñan kilifa yahud yi xamoon ne isa ibn mariam rasulullah la waaye intérêt yi adduna tax ñu daal di koy tuumaal yaayam jiñ ko lu rëy daal di wëlbatiku ba dem ne dañ koy rey waaye ñaareelu mbooloo bi mooy lan mooy ñi ëppal ci seen wàllu diine jàpp ne dañuy seet dëgg ba nga dund dëgg ca teguñu ko ca tegtali yàlla wàcce xanaa ay xalaat ay xuraafaat ay gént ay dajanaak ay kaza wa kaza loolee ñoo tax ñu yëkkati isa ba yóbbu ko ne doomu yàlla la waaye ndokk ñetteelu mbooloo bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne gëstu nañ dëgg ba xam ci dëgg daal di yem ci dëgg dund dëgg loolu nag mbokk mooy ñan mooy ñi tënku ci qaala allah ak qaala rasulullah nga la waay yow julit defal loolu muy sa base lépp loo xam ne yaa ngi koy dégg ñu koy wax mu neex ci xol mbooloo mu xumb na mbooloo maa ngay yokk lu mu mën a doon lan woote jëme ca xoolal ndax lii dañ naan qaala allah jalla wa ala wala dañ naan qaala rasulullah muy wax yoo xam ne yu wér la ci xadis leneen lu dul lii mbokk ay naxaata la ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla teg ala sirat al mustaqim yal nañu yàlla musal min al maghdubi alayhim wala dalin yal na yàlla sellal suñuy pas-pas yal na yàlla subhanahu wa taala boole suñuy xol ci dëgg yal na yàlla boole suñuy mbooloo ci dëgg yal nañu yàlla dekkal ëllëg ñu ànd ak mbooloom dëgg yal nañu yàlla defal àddina yi firdaw suñu suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين